de la formation tout à l'heure mais euh, dañuy ñëw ci juste après défaite bi ñu ñëw si recours yi après Burkina euh, Sénégal dugal recours lan yan explication ngay indi ci recours boobu noonu en tant que membre de la fédération merci donc euh, c'est que dañu war euh, dañu def rek suñu devoir parce que avant le match jot nañ ay écho que la France dafa aligné woon benn xale bi mës euh, bi joué woon déjà au niveau du Niger te xale boobu normalement euh, warul euh, warutoon participer au nom de la France ci coupe du monde bi donc ñun tamit quand on a eu ces informations là li ñu mënoon def même su fekkee ni France nappa pas aligné le gosse le jour du match mais li ñu li nekkoon suñu devoir c'est d'introduire un recours pour euh, demander à la FIFA ñu ñu euh, comment encore euh, ñu daaneel France ah ñu daaneel leen ñu bañ a continuer compétition bi maintenant kan moo doon am gain de match loolu après la mais Burkina def na ko Sénégal aussi il fallait que ñu def ko mais xam nañ règlement bi quand li mu wax règlement bi dafa leer il fallait quand même ñu def ko Euh, équipe yi dañ ko waroon def te équipe yëpp ñoo war a bind et dañu waroon bind au moins cinq jours avant kon euh, avant que compétition bi di démarrer mais quand si biir compétition bi boo demee ba découvrir lu mel ni li nga mën a def mooy nga bind recours. de de la liste avant avant ñuy lii donc à quelle fin ngeen di ngeen di defee recours boobu. non non non j'ai xam nga euh, moi je pense que tey euh, su fekkoon. Euh, nation africaine moo ko defoon je pense qu'on n'allait pas être là aujourd'hui c'est la France te Sénégal il fallait c'est normal mmh. c'est dans l'ordre normal des choses que ñu introduire recours boobu parce que la France a tout simplement aligné ci compétition bi coupe du monde bi benn xale bi nit mais retiré woon na ko non retiré na ko ci suñu match mais xale bi jot na jouer trois matchs mooy phase de poule bi jot joué na ko joue na sax contre Euh, comment encore Burkina. donc loolu euh, c'est normal que ñun ñu mën a introduire recours pour attirer l'attention de la FIFA et demander sax que équipe bi ñu disqualifier d'accord loolu lañ jot a def maintenant euh, FIFA peut-être jëlul say responsabilité par rapport à cette affaire mais ñun li ñu waroon def daf nañ ko même su fekkoon ni xam nañ ni peut-être duñ ci xaar gain de match mais il est important quand même que fraude moom lépp lu nekk fraude ah dañ ko war a combattre ci forme yëpp donc loolu moo tax on ne pouvait pas aussi rester insensé par rapport à l'affaire mmh. beaucoup de gens pensaient que peut-être nous l'avons fait parce que nous avons besoin du gain de match mais xam nga Sénégal moom surtout à la fédération xarañ nañ ci wàllum texte ñun suñu président fédération déjà hein il est c'est un avocat donc c'est quelqu'un qui qui interprète très bien les textes xam nañ texte lan la ñu wax mais recours bi moom il fallait que ñu introduire ko mhm. pas pour chercher le gain de match mais c'est il est important que ñu dénoncer quand même des des des des des comportements comme ça